Assalamualaikum mbooloo mi maa ngi len di nuyu kenn ku nek sa tour ak si sa di len geureum di len wax na len ne contane nañu ba fi contane yem ndax bima ma ñi fi ñep ak qualité nit bi fi teew sama baay daf may wax ne ma gawsu booy ànd del si taamu qualité tàmm naa nag di dem ci ay jotaayu politique tàmm naa di gis mbooloo politique waaye mbooloo bi ma fi gis nii sama xel dal na bu baax a baax a baax a baax a baax a baax lu tax sama xel dal na bu baaxa baaxa baax moy gisuma fi ay nit yo xam ku leen gis xep leen bo gisé jigen ni ñu ñëwee ni ñu ñëwé da ngay xam né ñi ay nit ñu responsable lañ bo gisé goor ñi xalé yi goor ñi ni ñu ñëwé da ngay xam ne ñi ñu responsable lañ bo gisé suñu papa yi ñu ñëwé da ngay xam mat ay bay ñoo fi top. donc dama mën en résumé wax na ni la crème du département la crème de la commune ñu ñoo fi dajé donc alhamdulilah rabbil alamin li ñu wax ci plateau de télévision yi di ko jooy di di na Sénégal dafa am xeetu politicien boo xam ne race politicien boo xam ne tànk jugewu fi li ñu bëgg Sénégal duñ ko am mooy politiciens yi nga xam ne dañoo jàpp ne ne politique war la politique wax loo xam ne ne du dëgg la politique ay sos la élection yii di élection législative yii ci investiture yi liñ ci dund dafa firndeel ñun luñ yàgg di jooy waye jotay biñu am ak yeen daf ñu may tay ñu mën leen wax neneen leen ñun ñu leen wo wa yembal wa département keur Massar mais surtout wa Sénégal ñu fi maam won moy mooy fulla mooy jom moy ngor moy fayda lolu tay la fi gëna né té am ñoo xam ñu koy incarner ba tay nakarlu di mettitlu li nga xamne mo xew senegal si jamono ji politique bo xamne ne politique xastante la politique bo xamne ne ne politique waxante lu ñaaw la politique saga la politique yo xamne ne kenn ku ci nekk ñu rew mi ñor la waaye say njariñ say intérêt personnel lolu kesse mo la ñor lolu ñu koy di len wax ne len ne senegal fu mu nek ni agression yi bari na fa lolu Sénégal fi mu nekk nii dund gi lépp dafa cher Sénégal fi mu nekk nii suñu yaay yi nga xam ne dañu doon xëy di dem fajar di dem marché amatuñu fit dem marché Sénégal bi nga xam ne ne jamono jii nawet bi léegi mu ñëw jaaxle dina am dina tàmbali jàpp nañu ne ñun waa coalition jot na loolu moo waroon nekk coow li loolu moo waroon nekk débat yi que des débats yoo xam ne ne. intéresse wuñu intéresse sénégalais yi waaye surtout ñi nga xam ne ñoo koy suscité di ko wax ñooñu kese la intéressé waaye ñun waa coalition jot na ànd ak sunu président Gaoussou Koma dañu wax ne dañoo fas yéene changer ni ñu defee politique bu Sénégal ndax fi ñu tàmbalee yàggul dara ak léegi fi ñu commencé toll ci politique ak ki gis li jot na commencé représenté yëmbal am na maire waaye tey dafa mel ni ne Gaoussou Koma mooy maire bi ndax boo xoolee ci débat yi nga xam ne moo nekk ci internet bi ci télé ci rajo yi suba ngoon guddee bëccëg opposant yi Gaoussou Koma suba Gaoussou Koma ngoon lu ko waral mooy li nga xam ne ne mooy mettitu askan bi li nga xam ne ne moom la askan bi di jàmmat ñi ko waroon xeex ñi ci waroon dox ñi ko waroon ànd ak ñoom ñooñu ñu ngi jéem a xool lan la mu war a mën a dugal seen poos te li ñu mën a dugal seen poos ngir ñu mën ko am faaw ñu dem laaxatu ci ci ginnaaw nguur mbaa ou bien faaw ñu dem xool yeneen tappale yu ñu waa Sénégal ñu leen wax ne leen ne réew mi ñoo ko war a mën a changer waruñ noon nangu ay nit yoo xam ne bu élection jubee ñu ñëw seen buntu kër yi dajale suñu yaay yi dajale suñu séer yi di leen wayloo di leen feccloo di leen tos solloo ay t-shirt di leen jox ay mille ay deux di leen dugal si ay njaganjaay loolu nag ñun dañoo taxaw tal pour xeex ko mu jub fi te incha allah rabbi dina fi jóg na ci li gëna tax daje bi am dafa am lo xamné dama ko doon def ay tournée doon ci waxtan ak jigéen ñi ak ndaw ñi te ku nekk ak ni la yalla bindé ku nekk ak ni la yaré man dé dama né tank ma ngi def politique duma ci wax lu ñaaw duma ci dox lu ñaaw duma ci dugg lu dul def duma ci wax duma ci mënul lepp lo xamne wax naa ko bu sobo suñu borom dina ko def kep ko xamne ne da nga ànd ak man pour defe ne politique bi nga ànd ak man politique alimentaire la koku béyee boo nga dem ñibbi ànd ak man du am jarign parce que li nga bëgg duma ko def kep ko xamne da nga ànd ak man pour garder sa dignité pour and ñu changer Sénégal waye dimbalé suñu won suñu dom won suñu rak won suñu mak nak lañu mëne soppé yefi ndax yefi buñ ko bëggé soppé li ñu wara ñëk njëkk dindi si ñun mooy loxo nañu bayyi talal loxo bi bis ni tay on politique mak bu taxaw ni daf leen bëgg dimbali mu leen jappalé sa formation ndaw boko bëggé dimbali jigéen boo ko dimbali koy jappalé ci formation boko jappalé ci formation ba pare jappalé ko mu am ay financement waye limay sante yalla moy fu mu nekk nii gëm naa ne homme politique yi ngeen di gis yëmbal ñu wër di dem ci ñinni ñi bareetul de ci département bi bareetul de waye man mi am fi ci wote len parce que lima wax ak yeen xamna naa ko ñemeñ naa ko te bu soobee suñu borom dina ko matal waye di def mention spéciale à Mama Wuri Diallo tax makoy def mention spéciale moy dañu waxtan ma ko man de soxlaw ma ay politiciens de métier de ma ne ko li soxla moy ay liguey kat te yow gis na né fond de développement nga yow actrice de développement nga gis na né yow lepp lo xamné da jëm ci développement naka lañu jappalé jigen fu nek dem nga fi ci aduna bu ndax lolu wuri kaa ñu ànd liggéey ñu jappalé jigen ñu yëmbal du ken département bi bi ñu jógee ci élection yi ba léegi mu ngi bind mu ngi xalaat mu ngi bind di xalaat ba yàlla def daanaka daanaka li mu doon togg yëpp mën naa li ci ëpp li ci ëpp njariñ yàlla def na mu ñor ma ne ko nag li am solo léegi lan la nañu dajale jigéen ñi dajale groupement yi nga wër groupement bu ci nekk xool ci nekk lan leen jàpp na ne du leen jàppalee ci formation mën nañ dem ñu formé nañ ci loolu groupement bu ci nekk ñu jàpp lan lañ leen lan lañ xalaat ne bu leen utalee financement ci loolu ñu dem ñu fex leen bu utaleen financement yooyu waaye nag damaa bëgg mu leer man sama xaalis man maa koy liggéey daf maa lew domm sànniw ko ci mbedd mi de déedéet képp koo xam ne ne jox nañu suñu financement di liggéey di ko fay joxuñu nak kenn suñu xaaliss nga koy liggéey di ko dugal sa poos ku jël suñu xaalis liggéeyoo ci di ñu ko delloo ci mi mbaa nga delloo ñu ko ci naa xam nga tamit waxtaan day leer man nag nekkuma fii di politique politique boo xam ne damay wax li neex nit ñi di nax sama bopp du ma ko def nekkuma ministre nekkuma député yoruma benn responsabilité damay xëy suma ngoon di liggéey waye li ma am yalla dimbali mako as néew mané nako naa ko bokk ak jaamu yàlla yi parce que lolu momay may bari na fi ñoo xam bo leen déggé ñu né dañuy financer xaaliss bu ñuy financer dañ ko sacc yeen jigéen ni nak yeen lay waxal kep ko xam da leen jox dërëm xol leen dërëm bobu fan la ko jëlé lima ma leen wax nak lu am solo la ndax lepp lo xam day dugg suñu biir du dugg suñu biir njaboot xaaliss bobu dañ ko chambar waye ñoo ñu jox la poste nga nekk ministre mbaa nga nekk maire mbaa nga nekk député sa salaire eggul un million nga ne da ngay ay millions yu millions loolu xaalis boobu da nga koo sàcc xaalisu sàcc nag képp ku ko jël ne da nga ciy liggéey yow ak kooku yéen a yem àtte rek man nag du ma fi nekk naan nañu dem jël ñii nañu dem ñëli déedéet wax naa ko ma Mamour nee naa ko ku nekk na ànd foo neex. parce que nit ku nekk moom mooy xool ku ko neex mu ànd ak moom mu am ci moom cofeel te yàlla xam na ne man duma ko ci mere mukk ku ne xoolal ki la neex nga dem ànd ak moom waaye ñun tey dafa am loo xam ne ne sum devoir la suñu devoir mooy naka la ñu def ba yëmbal noor nekk référence ci département bu Kër Massar te bu ma leen nee bu ma leen nee jigéenu yëmbal noor ñun dina nañ teg ay programme yoo xam ne suñu bëgg liggéey nag waxuma ñi nga dañoo ne ay de ñi bëgg liggéey nekk ci commune bi bu suñu borom ñun dinañ ànd ak moom dinañ ànd ak moom liggéey te bu yàggul dara waa yëmbal dinañ ci teg seen bët waa àdduna dinañ ci teg seen bët xam ne duñu dafa jeex dafa jeex dafa jeex bu élection ñoom ñooy dinañ def lii dinañ def lii mën nañ lii mën nañ lële te bu élection passé dootoo leen gisati loolu ngeen war a bañ yéen surtout jigéen ñi incha allahu rabbi ñëpp ñi nga xam ne bu ñu leen fii maman wër dina leen woo ñi nga xam ne ñoo yor formation yi dinañ ñëw daje ak waxtaan ak yéen ndax li gënoon jafe yàlla dimbal nañu loolu féete na boor li ci des nag organisation la. ndax mënoon naa daw dem France tëdd nelaw ah mbaa ma dem tox ji mbaa ma dem feneen waaye fii laay toog jàkkaarloo ak yéen lu leen métti ma ànd ko yéen lu leen neex ma ànd ko yéen lépp loo xam ne ni yëg naa ko mu leer ma ne lii luy jëmale dëkk bi kanam la luy jëmale gox bi kanam la incha rab rabbi dinaa ci ànd ak yéen sama papa yi nag ñoom duma leen lim. ndax lutax buma len leen lim dañu nek ay baay yu mat baay ay baay yo xam ni dañoo mën taxaw doom dekk bi nak jamono ji insécurité bi bari na damay ñaan suttu jigeen ni nañu waxtaan ak suñu rakk goor ni waxtaan ak suñu njabot gi wax leen ne leen ne bu ñuy ànd ndaw booy ànd da ngay ànd ak koo xam ne moo jara àndal waaye ñu dugg ci quartier yi def ay comité de quartier di def ay comité di sensibiliser la jeunesse ndax bu ñu sensibiliser la jeunesse bari na loo xam ne ne mu ngi am fu mu nekk nii yàlla na mën nañu dimbali ba lu bare bare bare wàññeeku ñi nga xam ne nag wax nañ fi sànq ci bokk ci mouvement yi ak ñi fi ñëw ñëpp li ngeen wax dégg naa ko